ñor rek mooy Sénégal du du mooy euh, euh, euh, am candidat boo xam ne ni ci flanc wu parti socialiste la jógee te mun nañu wax ni sax Amadou Ba parce que xam na su parti socialiste donc mun nañ jàpp ni Amadou Ba mooy suñu candidat parti socialiste comme su nekkoon ñun dafa dafa bokk suñu biir ñu tànn ko. coalition benn bokk yaakaar boo xam ne depuis 2012 bu ñu ko sosee ba léegi ci histoire taarixu Sénégal ci politique dina ko jàpp parce que ay la yowén c'est la première fois ñu gis ni coalition bi euh, euh, presque def na plus de plus de presque douze ans ñun ba ñuy tànn Amadou Ba ñu dañ bokk ci ñu ko ñu ko ñu ko tànn ci choix boobu lañ bokk te choix boobu aussi ñu gis si suñu bopp donc ñun du du question parti socialiste dafa war am candidat mais nañ jàpp ni parti socialiste am na candidat te candidat boobu euh, Amadou Ba la te Amadou Ba incha allah moom la jàppale beneen bi nag mooy que ni Amadou Ba boobu ñuy wax sax parti socialiste dafa pare pour euh, investir ko parti socialiste yëpp daje en congrès extraordinaire euh, d' investiture le